fan lañ jëm ak élection yi lée député yi source ané maire gi dee mel ni tulleeg man la laa la wax ah waaw waaw rawatina nag ci leader yu yeewi askan wi nga xam ne day dañ leen a safe waaw ñoo xam ne liste nationale ba day fañcañ ca nekk maar day di taali moo taxit groupe whatsapp baa ngay wàcc ah, ne lii lii kay day gént xanaa nee na classement bi daal gis nga bu dee dëgg la waaw ay leader yu ci mel ni man day dañ leen a yóbbu ca ginnaaw laa la wax te man nag damaa xamul lii lan la moo tax am compromettre Moustapha Guirassy day waaw Sonko Ousmane mu sell meegaay lay waxal de nee na leen man day je suis profondément déçu am na lu comité de Mamadou Thiam waaw nee na maa ngi sàkku ci ñi nga xam ne dañoo mer yëpp bu ñu na nangu mukk yëfu bu maa tey bii nga xam ne moom la gaay de nañ leen xeex kon wàllum injustice bi Jibril Diop ah, ah, ah. xamal na Khalifa Sall ak ña ma àndal ne leen jël ay doomu aadama yoo xam ne dañoo sacrifié ngir coalition bi lee def leneen lu ni mel waaw loolee du leen di jox nguur lu jëm nag ci waatur maître Moussa Diop xam le na ni day am na lu comité lool waaye benn responsable bu nekk ci parti am day investir wuñ ko gars yi dañoo mer lool jëmale ci Khalifa Sall mi lee ndax moom lañ waxoon ne defar kon liste ba yéen kaay daaw da càmmi ne waaye nag kaay leen ma wax leen nañ doon defaree rek liste nationale ba de yeewi askan wi waaw mais dama ne la njiitalal parti yi yëpp ah ko département di buruxlu lu national ba ngir bañ koon ku leen humilier leesi ko yéene kaay ne Moustapha day waaw daa mera mera mer dama ne la yeewee askan wi ma ngay toj laa wa ndax moom jàpp na ne day yëfu parparloo moo am kon ca mbir ma c'est inadmissible ndaxte nag damaa mënul jàpp ay militant yu ñu jël teg leen ci kanamu Serigne Mansour Sy Djamil wala ci kanamu Cheikh Bamba Dièye docteur Babacar Diop day ña ngay laam-laamee ne investir uñ ko dee ñemewuñ gaa lool mukk ma Diop Diop ah fañ ko investir nee la wax waaye gis nga bu dee ca waa Benno Bokk Yaakaar waaw Mimi Touré day Amadou Ba moo topp ca ginnaawam ak Aïda Sow Diawara Abdoulaye Diouf Sarr Ndeye Lucie Cissé ñoo Abdoulaye Baldé ña nga ca biir waaw yéene kaay Cheikh Omar Ndaw gi ne lu jëm nag ci wàllum wàllu mi xam ne ma nga ca diggante dund ak dee Toussaint Manga ak ña ma àndal day dañ leen a sacrifié allié wu Abdoulaye moom nee lañ leen tegee bu dul Mamadou Lamine Diallo waaw dugaluñ kenn enquête ne xanaa xamoon leen ne bukki moom matu kon yeewee askan a la wax gars yi dañoo mer ci wàllum investiture yi ah, la wax li gis nga wàllu bu Abdoulaye Wade day responsable yu bëree bëri dañ leen a écarté ndaxte nag dañoo saful yàpp safuñ jën wala ay jege ñaale ñi mer te yeewee askan wi day avenir Sénégal bi ñu bëgg ñoom Cheikh Tidiane Dieye waaw maire Grand Yoff moom suppléant lañ ko def mu mer ñoom Cheikh Tidiane Dieye ne lii wor la Ba bu parti démocratique sénégalais waaw nee na mer moom mënta ñàkk ci wàllum investiture loolu moom ala kulli àllin day bëgg di am de direction générale des élections day la waaw parce que njiital gëm sa bopp day dajale na staffam ba nuppi xam leen ne ñin nan lañ lu mën a toppee erreur yi nga xam ne moom lañ defoon 2017 ngir invalider suñu dépôt bi waa gëm sa bopp ñooy laajee waaw waaye Bougane Gueye Dany day la mu xam le mooy ak lu mënti xew ci seen recours di bi nga xam ne nañ ko déposé day ah nañu xam ne danañu xeex Macky Sall laa la wax évidence seene kaa ne Bougane Gueye day waaw nee na pare na de ngir bépp dërëm da la wax askan wi moo leese ko yéen a kaa ne liste Benno Bokk Yaakaar bi ci Ndakaaru Ndiaye Jël Diop waaw bu dee ñenn ña ñi ngi day ñeneen ñaa ngi naan ministre la femme waaw évidence yéen a kaa ne sa bu la neex à vos waaw ci Benno Bokk Yaakaar Doudou Ka day moom lañ jiital sa Ziguinchor tey lay dee wati de Pape Demba bi tey mi lee ca Kaolack ñamoon na Alioune Ndoye Ndakaaru Ndiaye Jël Diop Barta ngi ñëw Amadou Ba ca national ba Moustapha Diop Louga termine yéen a kaa ne parti démocratique sénégalais ñamu àndal day waaw wallu boo sàgganee de duñ ca bokk de maar de taal yi maa la ko wax leen fa yéene waa wàllu day waaw fan lañ leen may laa la wax 48 heures ngir lu tolo tolloo ñeenti junni ci ay parrain ñu dal di koy indi mootali ko parce que nee nañ leen dañoo am ay doublon ay nit ñoo xam ne paré parrainé ca yeneen liste du gatti seen liste le quotidien rek ané contrôle walum parrainage ba waaw dama ne le second tour la deuxième tour la ñaari fanu yalla day lañu ñu may ñiñ rejeté en tout cas bu gan Gueye tani ak Fadel baro day nee nañ dañuy xeex de tribunal lañ jëm de yene kay yi ma jàmbal jàngi ne ben no Bokk Yaakaar ak wa yewé Askan Wi day seen parrainage yalla na de kan mo leen ñëmé téye Pape jibril Fall waaw ñaari junni ci ay parrain la war war a daw mootali ci gaaw gaaw gaaw Sud Quotidien wàllum parrainage ga day ma nga def nag ay dégâts nag ay musiba mbaa ba dey ah waaw parce que ma Adama Faye Serigne Mboup Fadel Baro Bougane Gueye Dany nee leen dem toog te pourtant Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi day nee leen yéen moom seen parrainage yi baax na jàll ngeen waaye ñooñu ju rejeté day nee leen dong la santaane mooy Macky Sall organiser ay élection yu leer transparente may waa kër Abdoulaye Wade yooyee ngir ñu dikk nag daal di defaraat seen liste ba lu ko mooy maar day taali last Abdoulaye Wade Ousmane Sonko Aminata Touré mimi ay tëdd liste nationale waaw góor ga la de ak leen ko langal ni lé ak xam ne dóor fayu moom mimi ñoo riir wutali koon assemblée le mandat yéene kaa ne tëdd liste principale coalition bi day ci Sénégal waaw waaye yeewi askan wi lé la Sonko ma ñaa Ousmane mu sell may xew de Ousmane ak la waaye yeewi jiital de Walfadjri ne ànd bi nga xam ne waaye yeewi askan wi ak waa wàllu lan la ñuy ci loxol sénégalais ay argument yi dëgër rek Bakary Domingo Mané waaw ne bu yeboo seen discours day ñu teg ko ci jafe-jafe yi nga xam ne kon moom la sénégalais di dund sénégalais sonn nañ de lool def lu ne wéngi te dara du la ca fekk gi am ci réew mi impunité wàllum guerre yàq bi nga xam ne kon nguur gi koy yàq alalu askan wi lée ra indi ay proposition yu mat sax Mamadou Sy Albert ne loolay bi ne danañ dakal lii di ko caxat-caxate loi électorale bi lay wa ba ci wàllum limitation mandat opposition bi bu yeboo ñuy wax ci lii Mamadou Sy Albert ne yeewi ak wàllu war nañoo jox nag ab karkanam gu bees président assemblée nationale bi lée di ñëw baata mbooj na loolooy dëgg de yorin gu bon gi alal ji nga xam ne dañu koy jël kon di ko caxat-caxatee opposition bi ci loolu la war a wax les foyé ne kaa ne en tout bi dee di ñëw ni lée waaw lii ñu gis jaanama di safara la nar a nekk ci Macky Sall laa la wax gars yi seen bopp yi fees ñoo xam ne tam dañoo ësle imaginellement boo xam ne day Ousmane Sonko Barthélemy Dias ma nga ca biir ca biir Aïda Mbodj ma nga ca biir Guy Marius Sagna ma nga ca biir Bassirou Diomaye Faye ma nga la leen waa yeewi di rey de Woré Sarr dikk Mamadou Lamine Diallo mi lee alerte yéene kaay ne élection député yee ca Guédiawaye waaw maire ba di Ahmed Aïdara day waaw kan mooy jàkkaarloog moom parce que Aliou Sall mañ jàppoon ne moom mooy seen jant daal leeral ñoom waa Benno coordonnateur ca Guédiawaye nee na may kenn gisatu ko Mika Ba kooku moom daanaka gars yi koo valeur ba muy bëgg a dee réduire ko à sa plus simple valeur xale bu jigéen bee fa jaar Aïda Sow Diawara mi lée fanweeri at ma ngay waajal retraite am nee na Fatmata Tall kookee moom daa mera mera mera mera mer mer la jëlee ci élection locale yi moom nee na Fatmata mënul jug laa wax mënul jug de Racine Talla moom waaw dañ ko jiite mu noo garaawul baax na joxal keneen waa kon meeru Géejawaay bi lée élection député yi ah kan ci waa yow koo xam ni 2014 dañ laa dóor ñu génnee la Ndakaaru yóbbu la Kaolack waa Kaolack ne la persona non grata du fii nga mer a xew ci Ndakaaru yëpp ñu gàddooti la indeeti la ne la ñëwal jiiteeti laay laa yéeni kaa gi ne waaye xam nga Macky Sall mi le lan moo ko nar a sona la ah waaw njëg yee seer ci àdduna bi waaye torox tàngee ndóol gi nga xam ne moom la sénégalais di dund ni lée ñaar yi ñoo sonal Macky direct news ne demal ma ndengaleer dama ne xiif gaa coono gaa ngay ray villageois laa la wax ñaari atu yàllaa ngi ni lée béykat ya waaw mais liggéeyuñ ndax seen suuf yi nga xam ne dañ koo yëkkati kon jébal ko Babacar Ngom réew mi quotidien ne gis nga ndool googee ci Sénégal day Macky Sall nee na ndool gi dellu na ginnaaw de téeméer gi leese ko yéene kaa ne séddale xaalis bi nga xam ne kon Macky Sall mi ngi ko doon def day jébal na leen lu tolloo 43 milliards 542 956 ci ay njaboot ku ca ne am nga ñaar fukki junni yu manqué ñeent Macky Sall nee na na ndool gi dellu na ginnaaw ne ñi nga xam ne dañ leen a fàtte day nooy waat nañ de Macky jox na leen 43 milliards te gis nga ca jamono jooje libération yéene kaay nee na rapport 2019 2020 2021 boo of nag waaw non ñii nekk ci nguur gi ay mbirum wayu dëgg la ñuy def xam nga liñ naan di banditisme à l'état pur xoolal coowal suuf sa 94 milliards ya waaw dama ne la waa of nag day dëggal nañu porté plainte Ousmane Sonko balaa la wax jàpp ne gars ko def association a waay moo ciy jàppale sax Sonatel booy xool ba ca biir ca Taïf gee maire ba mbaytin ca caisse municipale ba daal la sëg maire ba moom dañ koo jàpp loxo ci poos wàllum ger ci mbirum suuf xoolal licence de pêche mais lu doy waar a doy waar lañ ci gis laa la wax mbuur moom gis nga waa Auchan waaw ña ngi ca boo xam ne wàllum ger ak ña jiite woon maire ba centre médico social bu direction des parcs nationaux salaire yaak dépense yoo xam ne kon fictif naa joxe tamit 15 millions ci yàlla avec ça Macky Sall na dëkk bee ngi dox <laughs> waaye dëkk bi dee ak lu mu dox dox dox dox dox dox dox dox dox Macky Sall na xam ne politique du métier suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree sama waa ji mën a la